ndeysaan arbitre ba na diggante Talfa ak ki nga xamante ne mooy Pape Diané ndeysaan Pape Diané moom mbokku Joolaa jël na ko Talfa jël na ko laa ilaaha illallah Talfa daan na Pape Diané jël bu amul benn werante ndeysaan